ak ci li nga xamante ne moom mooy ci làmbam muy Adama Diouf ma tuddee ko nag séeréer bu nice gis ngeen tey li mu sañse macha allah def nii moom dafa am classe nee naa leen séeréer yi am na ñoo xamante ni moom mais wax dëgg yàlla séeréer bi daal bokkut ak ñeneen ñi di ko bégeewaat nag bu baax baax dama koy jox mu nuyoo ñu waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy ci làmb ak instant bi li nga xamante ni moom mooy yëngal réew parce que nee naa leen kii actualité da ciy dox ba passé mbirum góor jigéen ñi la woon tey nag coronavirus la te xam naa dina am lu bari loo xamante ni dina leen ko dencal yéen ñu ñuy seetaan Adama maa ngi lay asalaamaaleykum Fatima maja gannaaw bu ma santee la julli ci yonante bi gërëm sama day gërëm sama baay ah, di nuyu Basiru Diouf borom Bawol di nuyu wasaare lamb di nuyu àdduna bi yëpp di ñaan nag sama xol sa xam naa ne neexul di ñaan di xam ne moo wax ci adduna yëpp rawatina Sénégal yàlla na fi yàlla def ndox bu sedd nit yi nag jëfeke noo xam ne noonu lañ ko def noonu lañ ko waxee pour ñu mucc ci yal nañ ci yàlla muccal ñun yëpp waaw may nuyu Ablaye Diop bi nga xam ne nag eh, fii mooy keram wax naa la chaque jour nag maak Ablaye Diop président Ablaye Diop eh, am naa ker am na fi ma dekk mais boo gisee tout le temps rek bu ñu ma soxlaa bu nekkul salle de muscu nekk keram dafa nekk suma nit koo xam ne mooy suma gérant mooy suma lépp lu ma ne waxal ma wax lu ma ne noppil ma noppi. ok merci beaucoup di nuyu adduna bi yëpp nag parce que maa ngi askan bi nag baru askan moom fere naa ne maanaam ak internet yi maa ngi nuyu ñoom yëpp nag fàttewuma kenn nuyu waa Grand ti rawatina meeru Grand Yoff bi nga xam ne moo fi nekk di nuyu ñoom Angèle Fall ñoom Mbayang Fall ñoom Xaar Thiaw ñoom Mbayang Loum ak staff somperto yëpp ak eh, écriment mindis fàttewuma kenn di nuyu président écriment mindis Adama Ndour Mamadou Waly Ndour Pierre Épine entraîneur di nuyu Birama Thiaré di nuyu mbër yëpp fàttewuma kenn bu ma limee may juum di nuyu Angèle Val di nuyu ñëpp bu ma compté damay juum di nuyu ñoom Anta Thiaw ak euh, Soxna waa restaurant borom ginaaru nooyi fàttewuma kenn ok. Adama Diouf nekk écurie Mamadis ah noonu lañ koy waxee du mais mais Adama tey ñu gis xoolal nga def sa chemise teg say verre xam nga macha allah jantal nice Adama xanaa daam ko koy labatat non man labatuma kenn wax naa ne xale may labat. man labatuma kenn coono boobu moom nekkuma ci ni may de beraw kay laay wut mi man labatuma kenn mm. waaw labatuma kenn dama ko oyofal nii rek de benn simis boo xam ne diisul noonu mm. waaw oyofal ko nii rek parce que dafa xaw a diis loolu moo tax ma oyofal ko nii rek def sumay feer yu baax mm. ñaaw ñànke moom yal nañ ci yàlla musal ma ñaaw bi pare nag duma sol lu rafet sol lu rafet ak lekk lu neex moom maa nga ca waaw bu ko yàlla ma ko yàlla moon looti ma koy am di nuyu ñëpp nag di nuyu Euh, suma xarit Matar Diop au conseil di nuyu Mamadou du bi nga xam ne mën naa mooy suma patron mooy suma lekk directeur numérique di door nag di nuyu rakam Aji Touré ak Aïssa euh, ak yaayam Sophie Ndiaye ak du Touré di nuyu Jean Maron nuyu waa numérique yëpp fàttewuma kenn ak ñoom Faye Soveru Matar Diop au conseil docteur Makumba Diouf fàttewuma ko wax na Adama Ndour wax naa daas Ablaye Ndour Fatick kooku suma papa la du suma xarit. na Adama sa gudd nag yow. dina gudd nag nuyoo mënut a ñàkk nag. Ah, loo loo gis wax lay njëkkee gis nga ñooñu ñu nuyoo il faut ñu nuyoo leen parce que ñooñu dafa ñekk noo xam ne ñoo nekk suñ ginnaaw di ñu jàppale ci lu bari bu nekk doon noom dina ñaaw vraiment di nuyu noom micro central Café ñoom yaa sant waa Grand Place suñ Grand Place Grand Yoff. non nuyoo Basir di wax la Basir suma doom baay la. waaw euh, nuyoo waat après xam naa fin émission bi ñi nga fàtte ñëpp da nga leen di waat mais tey Adama Diouf ñëpp xam nañ yaay Adama Diouf nga nekk mburu askan wi gars yi di la bëggee tey mën nga ñoo ñëwaatal li nga xam te ne moom mooy sa parcours. suma parcours bi moo di ne 2001 laa dugg ci làmb dëkk région Fatick comité rural Mbaye Laka Diaw euh, village de Ngouloul Pol juddoo fa nag màggee fa ba yàlla ah xalambaas laa njëkk a bëree drapeau poussière ñu tegoon ko 10 000 francs ma jël ko suma benn doom bajan bu tudd jaraaf maa ngi koy nuyu au passage di nuyu waa taabe waa xalambaas waa ñëw dañ fi ma dëkk moo tax ñu may wax Adama ñëw dañ fàttewuma kat waa tournage ñoom Ousseynou Diop loolu nag loolu la yàlla dogal bi ma dugg ci lamb en 2001 2001 nag boo ko xoolee man dugguma ci lamb rek euh, sooxe ci man suma sooxe lamb bu amee rek 2009 la am. mais avant sa sooxe làmb da ngay ñëw nga leeral ñi nga xam te ne ñoom ñooy internet yi lay suivre. waaw jala dogal nag ma duggee ci làmb suur boobu laa njëkk nge ba suur laa njëkk a jël làmb semaine bi desuwaat ma bëri taabe e, finalu may fa benn maang maang seen saa mag bu baax semaine bi desuwaat ma bëri ngi ngiindiin jël ko semaine bi desuwaat ma bëri dëkk bu ñax wax jooral finalu fa daanu saison bi noonu la tëjee noonu déwén ba nag ma ñëw rek raatale nag. amatuma sax catégorie bu seer raw gadu tanka poids lourd sax ma finaalu ko ba laa dogal à 2005 nag laa ñëw fii Dakar us ci woon licence sax suur boobu laa njëkk a ngémbu Dakar boo gisee ma lay ne sooxewuma ci làmbu sax suur boobu laa njëkk a bu dakaar suur boobu laa def final ak du booba nag ñoo bokk dëkk ba sax mais dañu daan bëre boobu du kalaf mooy boros mbapat bi adressé ngoor fii rek suur boobu laa bëre finalu borsit ma bëre def demi final boobu boo ko xoolee ñoom Kourt Diong ñoom Ousmane Diouf Tarala ñoom Mool O ñoom Jaga ñoom Lamine Saara Ndof ñoom Ngami Pambaan ñooñ ñoo fi nekkoon ñoo xam ne ñoo fi gënoon dëgër ñoom Youssou Ndour ñooñu laay fekkoon ñu ubbi làmb ji ma ñëw nag nekk lu sew nag dugg seen diggante waaw tey ma am ci ñoom lii mais taxul sax mu naqare noonu dama doon jël. mais est-ce woon na nga ba daan ko. non Youssou Ndour nag bëri nañu sax mais moom a daan nag moom ma daan Fatick. daan na ma Fatick nag waaw Youssou moom daan na ma Fatick jamono yooya daj na ne Fatick demi final mu daan ma daan ma am ko milliard ci jamono yoo laa wax de booba lu sew ruuj laa seen biir nag sonal leen lool bu ma ñëwee boobu maay def kilo kilos ñuy naan ñaan bu ma dugg seen ñaan golo bu golo bu ñëw na golo bi ñëw na. ngay nekk lu ndaw non dama dama sawar woon di teb rek di dal mais ponkal ba ma booleel moom boo ko xoolee 2005 boobu damaa ñëw finalu seen bi des waat ma ñëw jël ko ci baaboorang seen bi des waat ma ñëw ku ñu wax eh, ki ñu wax eh, kii te mu dëkk man weer njaac ma daan ma final ci saison bi tëj. année ba ma ñëw bu ñu ma jëlee tey bu ñu ma daanee suba su suba ma jël bokk ci nag ci mbor yi nga xam ne commencé naa lim ba 2006 ci nag ñu ñëw lañ ñëw te Berska mën na wax ne ñoo bokk lu ñu ëppale ay drapeau ba 2007 maa nekk maire sportif au Sénégal arrêté nag bu ñu defal yekk ni Lion d'Or cinquantenaire nag man la ñu wax CNG tanoon nag. yow lañ waaw pour ma assister yekk ni nag. ndax loolu. booba nag vraiment maa ngi def lu toj. di daan gaay yi nag daan boo xam ne amul fenn. kon kon yéen gaay non bari na sax bari na mooy mbër yi fi nekkoon jamono yooyu rek. xam nga boo limee sax day mel ni danga dem préparé di kii ah, mais jamono yooyu comme ñu ma wax nii sax jamono yooyu comme ñu ma wax ni sax commencé nañu wàcc sax. booba nag ay booba nag gars yi ñëw nañu ñoom papi doog ñoo bokkoon écrit sàmmande lañ ay gars yu bay gars yi nekk seeraas ñoom giran gars yu bari yoo xam ne daal xale yu taxawal lañu ñu daan suñu biir ñoom babak gilaas ñu bokkoon écrit booba ñi ma la waxoon nii nag xam nga mbor moom mbor bu ndaw mooy gën a ndaw mbor bu mag ci géew ci laa nekk nag commencé nekk au top nag ba 2008 laa nekk équipe nationale nag waaw toj nag am ay médaille d'or boo gisee ñu may wax double double double champion d'Afrique ñu ma ëpp ay ay médaille d'or moom ñoo fi bari mais ni ma ko amee quoi teglante ko ñu gàtt lu gàtt yoo xam ne matu sax ay quelques mois foo ma yóbbu ma ma nekk champion d'Afrique mosuma maa ngi ko amee euh, drapeau à 2016 Kaffrine 2016 ma présenté woon Kaolack waaw man nekkoon maak ñoom caaka fay suma rakk ju baax jooju ak ñoom booy fay foofu laa mujj amee médaille d'argent mais lu ko wax dëgg mosuma am médaille d'argent man médaille d'or rek laa doon am ma dogge foofu nag 2009 la signé ak Gaston Kalaf or Kalaf sax woon maak ñoom Fogala ak ñoom seen dama jël avance mercredi jeudi vendredi ma def accident gaañu monsieur Abat bi si laa gaañoo woon gaañu mitti. ok kon nekkul woon ay doom. non non non laa gaañoo woon rek ndogal yàlla ak yàlla ak dogal ak jàmm bi pexe. waaw ma entre hôpital nag wax dëgg fa yàgg fa lool nag ñi nga xam ne noo ma doon jàppale nag ma leen di sant bu baax a baax ku mel ñoom Pierre ak ñoom Adama Tour Abdoulaye Diop bi nga xam ne këram lañ nekk guddeeg bëccëg fa la doon taxawaalu ak ñoom Ami Sarr di ma doon toogal di ma indil ak ñoom dama cookoon gaa yëpp ak ñoom Baba Faye fat ak ñoom Mbad Seras ma ken taxawoon ma lool nag di ma mujjoon sax ba fi ma bi ma njëkkoon entraîné sax Robert Medou Ndiaye merci Robert Medou Ndiaye maa ngi koy gërëm bu baax dafa mujj wax ne non mënoo nekk fii il faut nga nekk ci nekk nga xool xëy na noo fee seer ci néeg ngay nekk parce que fa mujj a dugg ci néeg kenn mënatuma gis parce que fi ma doon nekk maladie bu ñu ñëwoon gars yi bu ñu ñëwoon seet ci maladie sax man la ñuy def événement. doon toj waaw waaw ci man yow Adama Diouf man def événement. def ba juumul deux fois te gars yi sax xamuñu nga jaan RFM moom a njëkk a woo téléphone ne aadama dina am lu ñu jaaxle am na gën a boo xam ne gardien la woon ci buntu bi bu ñëwee jënd suur naan ñëw ne gars bi ne eh, Adama Diouf xam nga yéen moom parfois sax du ngeen xamee da ngeen da fu mu nekk booba kenn gisat maam bakko naan Adama Diouf yow di war nga sant yàlla yaa ngi tëdd hôpital di fay xaalis bëri eh, bi mu duggee ci hors classification ba léegi kenn mënatu ko gis dégg naa ne day ànd rek quatre fois ci benn suur bi fekk maa ngi tëdd hôpital sax di fay xaalis sax kenn gisuma laa def noonu ba nganjan ma njëkk a laaj ma ma bugg a mi mu ne ma non Adama wax ma dëgg rek ma ne vraiment nag maa ngi nii mais léegi ma weer quoi dama ko boon bañ a wax pour Gaston tardé suñu suñu dat ci ñu am rek moo tax année boobu mujj maa bëri sax bëre ma pare dem am li dégg ma dem ñoom. après Gaston lu mu la wax après ñu def yëpp bëriwu ma. amee naa ko xaay sax maa ngi ko sant bu baax a baax jamono yu amee naa ko xaay ndax dama toogoon bëriwu ma te nekk suñu diggante gaa yëpp bare nañu seen biir mais man bëriwu ma ma toog di faju xam contrat rek ba deuxième ane ba 2010 laa njëkk a bëre combat Tyson ak Yékini ak Fogala mu ma boo gisee suma torof torof ci làmb ci bëri door la mais ñu bëri nag xamuñ ne jamono yi ma am combat yooyu bore or kalaf ak kalaf bi booba suma papa Gaston am na boo xam ne bëri naa or kalaf sax perte mu ne ma dama lay dugalaat sama avance bu ñu ma koy jox jëluma ko sax dama ne du ma bëre ñoom Babou ak ñoom Maxime Bargane maa ngi nuyu Maxime Bargane au passage ne ma noo bëre waatal bëre waxtaan da ngay góorgóorlu rek ma nekk noonu mënu ma bëre ku toog at di faju bëre woo mënoo bëre bàyyi rek ma toog bàyyi ma toog ñu ma noonu da ngay bëre waat parce que yow da nga nekk phénomène làmb bul bàyyi nii ci laa forcé démarche sax boo ko xoolee saakal laa bëre mu daan ma ma bëre euh, kii géant euh, daan ko ma ñëw Malick naa doon ma daanu à Thiès boo ko xoolee jamono yooyu dama bëre euh, kii géant daan ko ah kay mais loolu orkalaf la woon à 2009. non 2010. Adama mhm. ñu gis wax nga ko mooy lutte simple yi. dama doon toj. mais lutte avec Fra bi. Adama bu ci amee ay victoire ay ñaar la ci am li ci des yëpp ay. défaite la boo sax li ci ay défaite la ah. boo ko xoolee sax euh, ñaari victoire rek laa ci am. parce que lu ko wax mooy xam nga xëy na bu ma waxee bu fekkee yaa ngi wax yaa ngi may déglu war ngaa mën a xam. wax naa la bu ma ciy dugg ak combat yi ma am entraînement sax lu ma mën a daan. xam naa ne boo xëy na boo gisee Sénégal. lii feebar kese la gis nga Sénégal ni ñu ci sonné nga def accident toog at bëréwoo di faju bi waaj jamono yooyu sax dem naa sax ba médecin bi tax bëgg maa yóbbu Europe pour faj ma foofu affaire bi métti woon wooyu affaire bi métti woon loolu nag non non entraînement rek laa gaañoo ah. mais jamono yooyu nag xam naa ne suma ma mbokk tukulóor yeeg ñoom seen i bàyyiñ ma moom ndax jamono yooyu moom dama doon toj dama xewoon doon toj toj boo xam ne amul fen billaaxi dama daan romb sax ak sama diggante ak la romb naa sax ci kooñ sax benn xale xam xam ci kaw terrasse gis ma nii rek xam ba ma retourné barke Alxuraanu Karim ak waxtu bi ma toll nii jamono yooyu mm-hmm. moo tax xëy na nag eh, booba coow jooju sax parce que nekkoon naa mbor boo xam ne mën naa wax ne sax man maa nekkoon mbor boo xam ne de gars yi dañoo wax ne mboru seer bi nga xam ne moo gën a am galaaj mm-hmm. xam nga fii moom bu am na foo xawee rek. gars yi dañ la dekkal fu ne. gars yi gars yi ñu ngi wax ne sax booy bëreeg moom gars yi naan sax ñett lañ ma lañ ma lañ ma kii macha allah nag sama yaay moom seexul benn yoon. Mm-hmm. seex na seexaat seexaat yu teglante wu laa wax de. Ah, ba ma ko catu sax yal na ko yàlla bàyyi suma kanam bi <laughs> waaw ba si kanam jamono ñu ngi doon wax ne sax kii sax ñetti nit lañ ko seexee nangam ak nangam mm-hmm. fekke nag ay seex na topp suma kaw tax ay yeneen seex toppaat nangam ak nangam mais jamono yooyu ne vraiment siin laa dëkk nag man moom boo ma xisee nga xam ne siin laa dek man yooyu yu jeex man siin laa dëkk maa ngi siin am ay maam yu baax siin. wax nag nag boo waxee boo wax waxtaanee wax dëgg la nag ay ñaanu nit ku ñuul moom duma ko jéegaani fen nag dëgg dëgg am naa suma maam yu baax yoo xam ne vraiment wóolu naa leen wóolu boo xam ne buñ ma ñaanalee sax man du ma takk sax comme gars yi ni ñu takk ko takk yu bari de damay naan rek. damay naan rek lekk naan. lekk naan lekk naan rek. mais Adama sànq dañoo tegoon suñu baaraam fu am solo mooy lutte avec frappe wax nañ la ko léegi deux victoires nga ci am sama juuma Alaaji mbay nga ci daan ak Géant. voilà li ci des yëpp ay défet la. waaw mooy jamono yooyu rek est-ce que boo ko xoolee jamono yooyu teglante yooyu laa bëre yooyu or kalaf ñu def kalaf encore. lépp xam nga rek booba damay damay toog sax yàlla xam na ko ne du ma du ma bëre. mais non du xaalis barke alxuraan karim du xaalis billaahi. mais defet yu bari yu yëpp. waaw mais xam nga rek boo xam nga parfois da ngay dem rek ñu ne non non garaawul parce que nag vraiment man su ma yendu rek du weet man su ma yendu spécial du weet barke alxuraan karim fu ma toog mu fees de lak ne loolu yàlla def na ko ci man ma ci sant yàlla bu baax waxuma nag fu ma wax ak fu ma dugg man su ma yendu sax du weet. waaw waaw mais xëy na loolu nag xëy na eh, ñi nga xam ne duñ siifur lamb. ok mais Malick defu la ko. non Malick Niang defu ma ko Malick Niang suur bu ñu boree ba mu do bu ñu bëree mu doon ma daanu boo fii laa deg bu ma xëyee dama xëy dem dem géej ñëwaat bu may nekkee Abou Ndour maa ngi koy nuyu au passage mu ànd ak ay ñàkk journaliste yi bu ñu ñëwee ma fekk ma teg palaatu yàlla bu ndekki barki alxuraanu karim non non di ma gaañu ma sax. gaañu ma gaañu ma fenn. gaañu ma fen mais xam nga bore boo ko xoolee ba ñëwee sax euh, kii mu ngi may naan ne ñag yi dañ dañ lay yow mën naa laaj benn affaire ma ne ko non loo may laaj mu ne ma laaj ma ne ko non commencé ñu a interview bi nag te nga bàyyi rek mu ne ma non li ma lay laaj la du ma ko bindi barke yàlla du ma ko bindi abu ndur mu may dégg mu ne ma ñag yi ma àndal dañu joow naan mais kii nii ñu dóor dem ba mu daanu mais kii dara jotu ko mu teg palaatu yàpp di teg nii ngaral nii di la xamoon waa mais xam nga loolu ci bëre rek xam nga euh, victoire jaamam kenn du ko saltel mais man bu ma jógee gaañu ma fen bu ma jógee sax sama gars yi ñoom Ibou Diabé dafa ne mais gars la ñu ne ma tawaay def la mais boo ko xoolee jamono yooyu mag nekkul man rek maa la ñaa door mu xëy nag am na lu mu yoroon ci yoruñ ko woon ah, mais boo ko xoolee ñaata kaw la konte ko géant sax def ko doon mu daanu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen non non xam nga nit moom man def ma door ma daan rek laa mën a wax du ma toog di naan ne lii wala takk na lii yooyu duma ko wax. mais ba mu lay dóor nga daane gis nga ko wala gisoo ko. non bu may wër rek Malick ñaa gis naa ko nit ku ne ak sa bamel mais bu ma rek boo ko xoolee dama mel ni ku ow boo ko xoolee sax ci fu mu nekkoon mu ngi doon force pour ñëw suñ gars yi bëgg a ustuwaar ak moom gaa bu gaa nag moom ne ko non bàyyi ko bu demee ci moom rek boo ko xoolee benn lapataak la def nii rek ma jóg loolu sax ma sax di ko wax ndax loolu weesu na te Malick ku ma may cer la ku ma fekk def may ciral ba ci lamu mbuur bi ak feneen ak feneen dañ a sax docteur ma ko ma vraiment mm-hmm. vraiment mu nekk mbor boo xam ne nag gars yi wax la bu ñu ko ragal mm-hmm. parce que nit ki mënoo def lu ne weng fii barki demoo Ndiaye ñu bëgg laa fàtte gars buggee jëkk xam nga temps yële am na ko ma interview naan euh, bu ñuy jaay xarit tamit benn waay benn ma ne Malick Niang ma ne jox leen ma ko revanche boog lan jox nañ ma ko jox parce que gars yi duñ ko mbor la ko mbër yi mais gars yi ni ñu ko bañee nii. bëgg ko jox ñoo xam ne ñoo xam ne moo leen raw foofu ñu bugg a forcer di leen ko jox te mu def fi prof yoo xam ne xam nga lii moo tax bore moom bëre moom moo ko laax saxayam xam nga leex booy tibb fii boo gasee day ñëwaat suulu mm. mais bu dee ceeb boo gasee gasaat mu def baax. Mm. amul benn njëriñ ndax da def fii loo xam ne adduna ko ci biir la man boo gisee bu ma gënee ci li ma gënoon dama bëggoon ñëwaat pour dugaat ci làmb ji mais su may mbokk dañu bañoon woo ne dañoo bëgg nga baay làmb bu ñu mel du ma bàyyi. waaw non non bu ma amee bu ma defee accident boobu bi accident passé wax man ci defet ma ne leen man lu ma def ci làmb ma xëy rek ñëwaat ni accident tax ma am ci ay defet bëgg koo baa du ma ko def man du ma def loolu. il faut ma bëriwaat ba xam ndax mën naa ne waaj au mais macha allah bu ma ñëwaatee dugg ci mbapaat bi génnaat ne nag ne ñëwaat naa ba nekk atab sant naa yàlla baax mais yow da nga ne ñu jox la Malick Niang revanche est-ce que pare nga pour bëre moom yàlla xam ne bu ñu ko joxoon su moom bu rek moom man bu rek lañ ma xamee di Malick Niang waaw waaw parce que ñooy maante xaalis buñ toogee fii bàyyi ko fii bërëngal ko fii mel ni koo xam ne defu fi dara loolu soxor la barke Rasulullah bi ma joxoon avance su moom bu rek moom say mbokk duñ la ko bàyyi non non non ba lu tax est-ce que bëre bi ak bii dina am différence déggu ma bi bi mu la dóore woon nga daanu ak bii dina am différence non non non so dina am différence sax ah yooyu itam nag saa waay man amul lu may tiit boo ma xoolee bay bëre xam nga ne amul lu may tiib mos ngaa gis may arrière mos nga gis mbor di ma door may arrière yow mos nga ko gis may setu buur sin commando fen boo ko min bure ñu laan bañ faale bure géejo paal géeja ñaam faroga ga tubay ma siida géeja fuunga fuungeen mbug ne woor ram bu caaxaan jeexee nag sa maama seede woon siñ bamba nag fii le 7 mai ñu ngi koy ñu ngi koy magal ba léegi ba ñëpp ruuxee nag daw sa maama taxawoon nag ne ko kii nag ku jub la kuy jubal la di laaj adiya di ñaqee di di di di dundee ñaqam. kon yéen ñi ruux ne Malick Niang doo leen bëri ak moom. Adama Diouf nee na pare na pour Malick Niang jox ko revanche. jaay bu ma joxoon combat awaar suba suba mbore parce que lii soxor la du dara luñ ko gars yi di ko dawee ni berengal ko nii nangootuñ ko jël soxor la rek du tus dañ ko ragal kese ku loo wax ne ragaluñ ko rek ay kàcc la dañ ko ragal kese ñu mu war booleel xam nañ seen bopp. benn defet la am. la mën a bëree. waaye am pagay fi ñoo xam ne sax mais bu dafa doon en revanche ñoom suñ papa Baye Gueye ak ñoom Doubalès ak ñoom Robert dañ doon benn année bi dañu daan bëree ñetti yoon mais léegi boo bëree nit benn yoon mu daal la rek nga ne soxlaatuma ko dem feneen ndax yi ndax yi mbor yi gën a bëri adduna doxewul noonu du noonu. mais Adama. yooyu la waaye gars yi war a ba. nga bëri fii ah combat boo xam te ni macha allah Adama sax sa bës da cii gënoon a yokk ñu bari ne pourquoi mu jël ko. Alaaji Mbay pourquoi wu loolu. combat boobu sax boo gisoon may jël ko wax nañ ci waxaat ci combat boobu nekkul woon combat bu ma war a bëre ndax ci semaine boobu rek defe naa de semaines la def dugg naa adressé ngoor du ma tudd ñi ma daan mais bu ma duggee fa gis na ponkal yi ma daan te waxoon naa ko ko combat boobu ci année bi yëpp moo nekk combat bu gën a yomb ay seconde matul une minute de dugal léegi ci internet bi nga xool ko ay seconde la xam nga boo gisee sax ñëwuma sax xëy ak moom dóor ak di dóorante rek moom. dama doon bañ e dóor na ko xam nga yéen moom ku mu rek ngeen ne dóor na ko mm-hmm. ah dama dóor ko alaaj ñu bay feeyu na mun tax a am na ko ceex jàpp ko mm-hmm. bu ma ko jàppee defe dama ko dajal rek sànni ko fale mm-hmm. parce que kooku nag du ma moroomam waxuma pour leneen mais Ama Baldé bu ñu songante woon sax dañuy gis ay jargal yoo xam ne doo ko foog Ama Baldé mu nekk njiitam yàlla xam na ko bu ñu bëre woon bu ñu songante repère da nga gis leneen yoo xam ne foogoo ko woon parce que dama mën a bore nag tollu ma noonu boo ma gisee boo ma xoolee ak sama simis bi tax doo ne mbër la waxal dëgg bi rek bu nekkoon ay nopp yu ndengee ñii doo xam ne ki mbër la parce que yoruma poids boobu moo boole ponkal la nga ma defal ko affaire yow xam nga ko bu baax da nga may suivre may bëre loolu la ñoom Maxime Bargane ne ma jël ko parce que daa fekk mu am combat combat bi yàqu mu am kuñ ko joxaatoon mu daw ma ne xaar ma jël ko moom sax vraiment ku ma ko may cer la xëy na am na lu mu ci waxoon naan dama feebar ak nangam ak nangam xaawoon naa ko ceebare nag ndax loolu rafetul fecc yu bari alaaj mbay def fi ak tañaako yi mu def ci stade bi fii ko ku feebar dina ko def <laughs> gars yi dañoo mën a doon rek <laughs> gars wax rek Fatim ah, ah. waaw ca li gis nga làmb ji comme yàlla dogal ñu ñoo ci nekk mu nekk suñu métier buñ ko yàq fital di buurante di daanante fii ku fi bañ door la nga daanu nga dem uti turel maçon gi wala nga nekk jour yéen journaliste yi sax gars yi parfois doorante bëgg a am seen ci seen affaire ah. ku bañ doorante yi na dem fale uti maçon wala nga nekk chauffeur chauffeur da parfois garage bi ñu poñante lu yomb yooyu moo fi amul fii nii en tant que mbër nga dugg nga ci bëri dóor dinañ la dóor ba sa ba toj loolu mooy yoon parce que yaa ko apte loo ciy moytu tapet baaxul man doomu sa gis mook noonu may daw di arrière ne kenn du ma dóor ma daan de te nag vraiment évolué naa évolué boo xam ne koo yaakaar ne mën na maa dóor jamono yi nag day day nax bu am. mais ñun ñu say adversaire potentiel. may nuyu nag may nuyu nag waa école COFAX ñoom Maître Latif ak gars yi fa nekk yëpp ak ñoom Babacar ak les vieux ñu fa bàyyoon yëpp vraiment may nuyu ñëpp fàttewuma kenn. ñun ñu say adversaire potentiel bi ñun ñoo nekk sax. nag ni nga gis nii man du ma dëkk mbër sax boo ko xoolee sax boo ko xoolee man du ma dëkk mbër. mais Adama Adama ah, gars yi may dëkk rek. gaa may dëkk rek. am na ñu may dëkk rek. sama doomu day wuli nee na nee na man rek la soxla. est-ce que pare nga pour bëri. non lu tax damay liggéey ah. wulli buñ ma fayee lu ko jar ma bëre yaaw jaan sax buñ ma fayee lu ko jar ma bëre. mais wulli ak xew gi mu xew instant bi ak ni mu defoon liiru jaan gàmbi. ma wax ci moom lu ñaaw mais góor moomul yéen yi. Eh. ñu door la nga tëdd ci na door nga daanu mais door la ñu nekk ci ginnaaw saa kay naan koo eh, la dañu ma dur koo la gëree lu tax mais wax ko taxaw mais wax ko tëdd fa ne jàq ci biir gàmbi <laughs> yooyu sa amul fen eh. yu amul fen mais wuli ko am jom la day xeex wuli xam nga ne mosoo gis muy Arya boor nag façon boor bu ne mos nga gis ñu koy door muy Arya door ko mu daan ba mu daan daal gis nga ko fi ku am jom la day xeex day bore. buñ ma fayee lu ko jàmm bu rek moom. mais dafa am benn mbër boo xam ne instant bii muy Batika est ce que tey ku la joxoon avance am. Batika nag vraiment man man Batika comme waxu ci man du ma wax ci moom. mais non waxul si mais wuli wuli moom. wuli moom comme dafa waxoon ne dafa doon wax ne Adama doon wax ko suma xarit la gis naa ko muy def interview temps yi man la soxla man nag saa waay ku ma bëgg bëgg naa ko. wuli ñëwal ma oyofal la mbir mi dama la koy oyofal ba mu nooy nëpp la ma def ak alaaji bay sax dama ko def ak yow dama koy oyofal parce que xam naa ne yow ni ma gisee ngay waxee sax bañoo ku la oyofal ñëwal boo ñëwee dina la ko oyofal man ku ma bëgg ma bëgg la te xam naa ne suñ géew war na mën a neex ndax duñu arrière. waaw mën naa ko yaakaar mu faj ko nag. nee sa faj ko rek xëy na daa bëgg a faj te mënul faj yooyu rek xam nga faj yooyu moom faj def nii. daal di sànni sa loxo def nii gars yi dañoo nomb te man lu ma dama sonn ci affaire bi. parce que boo gisee sax interview xam nga yàgg nga maa topp interview bi may ruux may ruux parce que da ngay dem sax doo am loo wax parce que say fan si kaleb chaque jour mbër combat amul mbër combat ngay dem ba da ngay rus. dama waram combat dama war a combat man dama bokk ci lambu ji. avance Batika nga jël ko. non man ku may jox avance man déggoo ma la wax man taamuwu ma kenn dégg ma wax la gis nga gis nga man gis nga man lu jëlee ci roi de Sarène ba ku mën a doon man kuñ ma jox ma bëree man mbër laa. mais Batika dafa xam nga bu ma nekk loon bër day ñëw fii di wax ak man waxu bëre. Mhm. man mbër la mhm. bëre mooy suma liggéey. Mhm. mais Adama ku ma jox komba du ma daw du ma dellu ginnaaw dinaa xeex dinaa naa mais ñu bari ne da nga nekkoon mbër di bëre macha allah di bëre ak ay mbër mais léegi Adama Diouf comédien la def boppam parce que ay mbëru comédien yi la commencé di bëreel. non mbër yooyu duñ comédien tax parce que bu ñu nekk doon comédien duñu am licence. mais gars yi ne yow comédien nga léegi. non non du ma comédien sax sama waxtaan neex rek. ku déglu sama waxtaan boo may rek sa jabar sax nga kontaan. ah ñoom dem naa keroog <laughs> keroog keroog Dakar falaa nekk may jënd koko benn garab xaw ma ko di barke Sidina Mohamed dama ñëw jënd koko ma jënd koko 500. mu ñëw mu jëndee ko ko 500 joxe 10 000 waa ji delloo ko rek mu def ma ko nii may noo mu ne non Adama man sama jabar daf lay bëgge bi man dama lay bëgge ma ne ko mu ne non soxlawuma sa numéro sa numéro mu ngi ci internet bi man naa la gis ci internet bi rek barke Sidna Mohamed damaa rus sax mu ne ma grand mu taal oto mu ne ma Adama maa ngi lay kar ci internet bi yow yaa may dundal billaahi soxlawuma sax di naan damay jëlante ak yow numéro fu ma la gis dama lay bëgg barke alxuraanu karim laa la waatal ak waxtu ma toll nii loolu la